gis ne dimbale nañ doomi réew yi si waxtu feebari mbas bi nga xam ne nit yu bëri ñu ngi jànkuwanteel jafe-jafe si wàllum dunda nguri Gambia ñew nañ joxe li di ndimbal bu ñuy ooye COVID-19 food aid bi nga xam mu ngi tollu ci 700 million dollars dimbal bi nekk na li nga xam ne ñu ko jagleel ay njaboot yi nga xam sa dañuy niw doole te ñing ci biir réew mi kii di Excellency Dr aissatou Touré mom nak bu mu doon wax ci COVID-19 food aid pesa bi wone na né ndimbal yi nga xam ñu nekk di duggal ci biir réew mi nguur bi momu ko di yokane ndimbal bu munti duggal ci biir dëkk bi war nañ gis ne tegu na si kaw yoon pour nit yi ñu mun a xam kala fa pour mu mun a set ngir ne ñun nit yi lañ nekk di liggéeyal te nit yooyu noonu dañuy am óolute si ñun loolu moo tax ñu war leen taxawal ndimbal bi mu ngi ñëw si anami maalo diwlin ak lii di sukkur waaye nag mu ngi ñëw si waxtu bi nga xam njaboot yu bari yi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi ñu ngi soxla ndimbal Her Excellency Dr. Aïssatou Touré continue na di wone ne 736 uh, million bi nga xam ne boobu leen jël pour jëndal lii di ay maalo duulin ak sukur nekk na li nga xam ne dinañ bugg a mu set ngir ne ñu bëri fu mu nekk ni ñi ngi laam laamee te lu waral loolu mooy ne xamuñ mbir bi nu mu fa taajuwee te li nekk na li nga xam ne foog naa ne war na set pour nit yi ñu mun a xam lu nekk di xew si weeru mai bunti taskati xibaar buñ gën a xamee si standard newspaper ak yeneen bunti taskati xibaar yi génne nañ seen front pages yi di wone ne am na ay taxadeer yi nga xam ne nag ñoom ñu ngi leen jàppoon ngir ne ñu ngi leen tuume ne lu dem ba toll si ñaar fukk ak juróom ak juróom-ñetti saaku maalo yi nga xam ne ñi ngi ko war a séddaale si gox yi nga xam ne ñoo nekk si biir réew mi si xibaar yi ci Barma fii si Paradise TV Ousmane Jatta